Ndiaye waaw maa ngi leen di fay. waa King Cosmétique. waaw King Cosmétique nag euh, li tax ma ñëw fi tey mooy que moom sama waay la di euh, Dan Mbacké di ku ñàkk ki ñaan baax loolu bëgg Pape Ousmane Seck sama baay yoon la nag euh, man ma yeggali coloré bi comme papa yu bari mënatu ko man ma ñëw ndax wax dëgg yàlla li mu séq ak baay lu rafet la kon nag maa ngi am kontantement encore une fois lii yàlla na law. yàlla na fi ñëpp di teew ku bëgg lu baax muy muy muy gàmm bu boobu bu mu mën a doon na nga ñëw fii ci King Cosmétique ah ak cheveux yu baax yi lépp a ngi fi kontaan naa nag eh, sama jabar sax bu bëggee cheveux fii laay ñëw kon nag xale yi nañ ñëw fii ndax man cheveux bu baax dafa may daaneel waaw koy kontaan naa lool nga xaw nga guddee tey waaw waaw c'est normal yoon bi moo xawoon xat ma am ci ay fu ma jaaroon rek waaye nag comme ñëw naa nag alhamdulilah waaw waaw relation personnelle yi ay bon relation yu naaj la rek parce que moom moom moom li yëpp moo ko waral bu xewlee ñun ñëpp ñu teew baaxam la ak nitteem nit boo baaxee bon loo xewlee nit ñi wuyu si la kon nag dañ koy ñaanal lépp lu mu bëgg rek ci euh, King Cosmétique yàlla defal ko ko lépp lu mu ci bëgg mu am ko lugu bësal la ah, kii nag waaw kii nag ma ñaay ak lugu bees rek. waaw waaw mais nu mu tudd corona wala bësal. man la euh, a wax tuuti sax. sama rakk la. day mbalak rek xam naa day xam moom daa neex eh, moom moom dafa sonal waale sonal ma day mbalak rek suñu rakk la nag eh, di suñu xarit maa ngi koy nuyu de passage. Euh, comme mooy rak léeg-léeg rak da ngay tooñ sa mag comme ñoom comme Kéba nu mu ko daan defee rek waaw Kéba boo gisee moom Ousmane dangaan nga naan est-ce que ñoo bokk sax usman Kéba ko mag Bambal noonu la mel ak ñun kon nag yàlla jàmm yàgg. kon na ko wala na ah. Ah, jox na ma xaalis bari nag. corona la ñu bañ dajale bi xam nga rassemblement yi et je crois que Pape moo fa nekkoon Pape Ablaye Naar Taaw ñoom papa Thion papa Assane Ndiaye eh, nag eh, ah, mënuñu comme mënuñu def rassemblement bi ñu war a ñëw rek ñoo ñëw waaye bu ñu paree ci dinaa xew xew bu rëy laa wax. mais mais ñu muy li aar di fayul Ousmane moom laa jël si dem ak moom. waaw loolu c'est loolu loolu loolu Idali xam na li may wax. Hmm. parce que papa sonn na ci aar bi comme aar bi fay ko ma ni naa dina la xorom moom sëttoon na maamam waaw fa yàlla bindee jàmm yeggagu fa. kon nag lu aar bi fayul Ousmane rek dinaa ko indi waaw parce que ma Ndiaye dafa jot waaw <laughs> non leen tooñ rek waaw. <laughs> ma Ndiaye na sunguru. sunguru moom mi ngi fi. ah mu ngi ci jàmm. mi ngi ci jàmm yow. booy xaaral ma dem <laughs> waaw ah, moom sama jigéen la waaw maa ngi koy nuyu de passage moom surtout Bator sulay bi. Eh, gàncir lañuy la yaayam. Eh, mu nekk ku ñàkk ñaan. Eh, di sama jigéen di sama lépp eh, kon nag maa ngi koy nuyu de passage. ma Ndiaye seen seen jikko yéen artistes parce que yéen di xuloo ci pet ba pare bu ñu leen invité ngeen di rafetal pourquoi ak Soumboulou jotewuñ euh, sama jig ba léegi ñu ngi nekk ba ñu ngi nekk sama jigéen la sama xarit la non non non yi rek yéen di ngeen garaaw yéen.